Boy Bissau Thiatou Kairé arbitre baa ngi wax ak ñoom règlement li làmb nangu ak li làmb bañ Boy Bissau Thiatou Kairé arbitre baa ngi laaj ay sixième laaj na Thiatou Kairé avertissement Thiatou Kairé am na benn avertissement am na lu mu laaj na leen arbitre bi sifflé na Boy Bissau booy xool caatu kere ko xaw sut moo ko xaw a ëpp laf waaye est-ce que moo ko ëpp doole booy bisaa woo caatu kere caatu kere ngi dox ci kawam booy bisaa woo booy bisaa woo caatu kere hey booy bisaa woo caatu kere cokkaas na léegi booy bisaa woo eh Thiatou Kairé daw na jël da daan da ko nopp daan na ko Thiatou Kairé añ na ko daan na Boy Bissau Boy Bissau comprendul Boy Bissau daanu ma ku daan Thiatou Kairé ko daan da ko wañ braga ko mu jam mu samp kat appi Adama jël ko Siteu du ma ñi bilaay walaay Siteu man damay wane sama bopp te su kàttanu yàlla dina la seet si ma Siteu seet si ma ñu waxtaan